wala di mbay ajot Ndeye moo fi ne euh, pour ñu waxtaane le 21 janvier incha allah euh, ca euh, théâtre national Daniel Sorano mais bëgg nañu nga fekkee quand même ki ñuy bëgg a waxtaanee léegi nii ci fàttaliku ak El bay Mbaye Garmi tey ci bii dañu ko jagleel jaraaf Youssou Ndoye mm-hmm. waaw ñu tàbbi nag ci jaraafu Kaver bu nu sori na biir mbay na mbay ak jaraaf sa baay Alaaji Suleymaan Ndoy mooy sa baay Alaaji Yuusu Ndoy kookoy sa baay Yuusu Ndoy waxuma sax nga ne jaraaf ma ne Yuusu Ndoy jaraaf yi Cap Vert la jaraaf yi ñëpp la au conseil bi nga xam ne dañ ko formé def ko président mérité na ko te mën na ko te am na lu yàlla def ci moom jaraaf Yuusu Ndoy depuis euh, depuis xaleelam na nekk ak moom may ko teg bët di ko xool man nag mii toog di wax ak yéen tey en 1934 33 bi ñu yóbbu Blaise Diagne abattoir mu ma fekk di foncé ma taxaw Jaraaf Youssou sowe nañu si lu bari te mën na sowe Sénégal bi yëpp boo ñëwee fii si géej gi ñu wax géej sama jur ngi fii si xunta mi nekk si géeju Wakam indi ko tefe si biir amul kenn ku fa ñëw ñu dugg ku dul Youssou Ndoye place boobu bu dul Youssou kenn du fi dugg mën na yër Ndakaaru mën na yër senegal Youssou Ndoye am nañu lu yàlla def si moom. ma ñu amee jàmm tey si Wakam suufa si Wakam reyante fi rey ñu fa ay nit yàlla moom a tax moo yor suuf si moom lañ ko denk te man mii fi magit maa ko ko dénk mu téye ko yokk te téye na ko téye bu rafet kon yàlla nañu yàlla defal bu fekkoon ne du janaar bi su tey si wakaam si suuf si maanaam ren de mooy am si wakaam gi ku nekk bi naan man a man a fekk demoon noonu mais ak matam ak njàmbaaram mu nekk xale moo tax ñu si fii tey nag Youssou yàlla na ko la jàppale ñu jàppale ko am na lu koy feeñu xam naa si lëf parce que fu mu fu toll def ma kay wax bu def la sara dañ koy def parce que am na ñu ko koy wax kon nag nit ku deme noonu dang koy jàpp mu nekk nit ku secret li nga kaa gis sax tuuti xam sewaayam boobu baatin rek la fees ndaxuma ko parce que man baayam la parce que bi yaayam duggee si am fii fii ñëw si kër gi ab baayam laay jon na ñi ko jëkke seeti si laa bokk mu di sunu xarit nu gonando ba mu nekk fii tey mag la bon nag Youssou haut conseil collectivité lébu ñu def ko président mérité na ko te yàlla mën nañu defal sutura fii ba ba ci kanam tool yi nu fi am yëpp muy bactrin muy camp militaire yi fi nekk yëpp tu wakaam ak moom sunu alal la li ñu fi joxe si école du jeex du xaaj ay lycée yëpp suñu suuf la quartier yi suñu suuf la école yi suñu suuf la yu dul jeex waaye lépp yàlla ñu ci tax li ma laaj ci Yuusu mën na ma fee toog fi tey ba suba man di ko wax jàmbaar la am na fit moom lañ dëkkee suufa suuf siin wër tey yëpp ñu moom lañ ko dénk te dañ ko ko dénk ak baatin aussi bon nu ngi koy ñaanal yàlla fi mu jëm yàlla na ko fa yàlla yokku Suleymaan mooy mooy sa baay mu ngoog donc euh, loolu ñu ngi ko jagleel jaraaf Youssou Ndoye di kilifa nag ci réew mi hélas waaw euh, Baye Cheikh xanaa rek di ndokkeel bu baax jaraaf xujja mhm. ndax moom nga dégg baatam noonu mu def mhm. seede rafet yooyu ci jaraaf Youssou sundooy mhm. mu nekk tam mag mu yàlla baaxal waaye xam nga jaraaf Youssou Ndoye dañ ko faral au conseil supérieur des collectivités libres Kaver fal ko ko. Mhm. mu nekk nag koo xam ni kilee Baye Cheikh. Mhm. ci ñi téye Kaver. Mhm. te di càmbat dëgg-dëgg li nga xam ne moo war a xel ci Kaver. Jarvis Ndoye moo def ci bopp. nekk tam nit koo xam ni kii. bëgg réewam fonk nag lébu gi di ci doxal ni nga xam ne moom la ko mag ñi bàyyee mu di ko doxal ni mu ko war a doxale te loolu nag bu bu gimmee ci lébu gi te ñi ko ko def tubaab jalaaw bokk ci mbijam bokk ci euh, ngor bokk ci yoof bokk ci kon ñooñu ñëpp dañu wax ne daal dëgg-dëgg kii nu fal bu jekkee te rafet kon war nañ ko sargal ndokkeel ko ñaanal ko yàlla mhm. moom itam wëlbati ko war a rendre ñooñu tam mo ne ndax ndénkaan dafa am solo mhm. te dénk lu ñu lay dénk da ko war a xam mhm. moom li ñu ko dénk xam am na xunt moo xam ne Baye Cheikh guddi nga cay fanaani de jaraf kott dong moo cay dem lu ko ca digal ca su génnee wax ko réew mi ne daal war nañu def nangam ak nangam ak nangam te foofu góor gi maa ko mu ne ma gar góor gi ne mës naa faa fanaan am na jaan joo xam ne ci sa ndejoor lay génni kon nag kon Cap-Vert du caaxaan. déedéet du caaxaan. kon daal réew mi balaa ngay xam ne du caaxaan sax même boo dul lébu. très bien loo fi def da nga leen war a tàggu. très bien. boo fi waree si war nga leen tàggu boo waree wootee Sorano le 21 janvier da nga leen war a tàggu. ah xam nga des fois nag tàggu nga tàggu nga bu ah. naa borom ba jox nga ko soowam ba waaw naa ko ah. ma ko dara <laughs> <laughs> kon daal di wax ne daal jaraaf a ngi noonu ñu ngi ko ñaanal yàlla guddal fanam te sàmm ko ak yaa ñaañan ndeyam ju baax joojule waaye daal dëgg dëgg ma daal xool naa ne daal mhm. fexe na daal ba jaraaf daal benn jaraaf nii la tudd. déedéet déedéet. bu bu génnee rek ñoo xam ne jaraaf génn. wallaay bu génnee te loolu rek moom te dafa am tëll man ni muy ni muy ni muy sañsee ak euh, ni mu amee ni mu amee charisme wallaahi wallaahi wallaahi kon ñu ko ñaanal yàlla sàmm ko te guddal fan amin amin amin kon euh, loolee nga xam ne jagleel nañ ko jaraaf bu Ndakaaru di jaraaf su Ndoye mën ngeen ko am ci youtube bi slash tfm wala sax suñu site internet www.igfm.sn